Thank <laughs> you. toujours dans votre acte du jour 10 10 juillet 2024 sur la chaîne des grands événements suñ fa jógee dañuy dem ci li nga xamante ni mooy jigéen yi nga xamante ni ñi ngi am participation jëmale ci activité économique suñ ko xayma daal su jaari jigéen yoo jël ku ci nekk am na kenn koo xamante ni mi ngi ci activité économique ginnaaw li nga un dernier recensement général bi agence nationale statistique de la démographie di ANSD ñoom également dañu intéressé wu ci activité économique bi nga xamante ni jigéenu sénégalais yi ñu ngi koy def suñ tukkandikoo ci rapport bi résultat provisoire yi xam ne ni que daal jëpp denn jigéen ñaari jigen yo jël dal ben jigen mi ngi participer ci ben type d'activité bo xamanteni activité économique la ginnaw li nga xamanteni ni majorité du ñi ngi toll 61,9% ñi di liggéey ñoo xamanteni dañoo indépendant dépendre ci kenn parmi ñi nga xamanteni ni quatre xamanteni ni ay employeurs lañu di ay patron ñom ci seen bop ñi ngi activer ci ben secteur bo xamanteni tertiaire la di 61,5% ginnaw un bi ñu xamalé ci document bi nga xamanteni ni moo ci rapport recensement bi révélé na dal que fi ci Sénégal 44,5% le ko daal ci ménage yi muy ay ménagère agricole lañu ñu doon nañu ben majorité bo xamanteni ne tey pour cent la ñom ñoy résider en milieu rural suñu sukkundiko nak ci li nga xamanteni moy chef de ménage agricole yi principalement ñi di ay góor toll nañ ci 83,9% virgule pour cent ko dal ci ben échelle régionale fi ci Dakar tol ci 27,6 pour cent ba noppi foofu ci Ziguinchor ñu dal di am 25,2 pour cent mu dal di regrouper lu ëpp ci li nga xamanteni suñ ko xayma jëmale ko ci ménage agricole bo xamanteni ay jigen

Thank you.